asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info du nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral daal di mu sàcc di mu sàcc daal du nuyu kilifa diine yëpp di ñaan réew mi yàlla fi yàlla def ci jàmm di ñaanal ñi nga xam te ne ñoom nekk ci lalu hôpitaux yi yàlla yàlla fëgg seen bopp ñu nekk ci prison yi yàlla neen yàlla génne di ci ñaanal ki nga xam te ne mooy son papa la dégg yàq numéro 2 yàlla ko yàlla génne ci barke yonente bi albarka kayre di ñaana képp koo xamante ne rek caabi da la féete ginnaaw tey nag ñu ngi fii si jàmm gën ñëw seet si ki nga xamante moom mooy Laurent gannaaw ba mu war a bëree combat xam xamante ne mooy le 6 le 6 juillet ci diggante nga ni samedi bii di samedi bii di ñëw bis topp la 6 juillet ci diggante moom xoolal moom sa morom ci diggante moom ak yemte bu mooy Seck Ndanane di ko nuyu baax gannaaw ba mu voyagé moom Seck Ndanane en même temps mu amaale combat Laurent moom man xaw ma lu ma jaaxal day am combat di si am combat di nuyu nag ñu ngi fi fekk ñëpp dañ koy bàyyi bu nuyoo ñu dugg si waxtaan bi waaw ginnaaw ma sant yàlla eh, di julli si Yeesu Kirista sant Mariam bu sellam di sant ñëpp waaw di jégalu ñëpp ah di leen sama làmb yi samedi bii di ñëw bu topp la comprendre nga waaw di ko waajal bu baax nag waaw di si woo ñëpp nag surtout loolu noonu di si woo gars yi ñu jàpp si ko waa làmb yi waaw entraînement yeeg lépp pare nañ mais jàppale bi ko yee di si woo ñëpp ñu jàpp si bu baax a baax waaw Laurent sa combat ak Seck Ndanane mu nekk combat boo xam te ne dañ laa joxoon adversaire bi nga delloo avance bi ñu ne pour xeeb ko wala pour bëreeg ñeneen. ñu gis ci combat bi ñëwaat bu mel ni Seck dafa bokk sa yoon. waaw daa bokk sama yoon quoi comme maanaam waaw yàlla mooy boole rek lii nii nii daa jiit suñ juddu ñun man naa xaw ma ne woon dinañ bëre. yee mais juge naa si défaite moom mu jóge si victoire ñu war a jëflante quoi war a bëre. waaw te tamit naa làmb la quoi mbër la ak ma kaa yee làmb la yàlla na ma yàlla suturaal may ma ndam bu yomb bu gaaw nag incha allah waaw. Seck naan dem voyage ñëwaat macha allah nag yokk poids ñu gis ni nag keroog yaa ko ko boo voyagé boo ñëwee da ngaa war gis na liggéey et ñu gis ne bi daf ko jël au sérieux ñu gis dafa mel ne comme nga naan nawloo nga ko mais dafa mel ne ko xaw a xeeb. bis bi moom moo rëy moom. waaw man daa mel ni comme ñi ma daa bëreel rek laay ba mais moom maanaam tur bi quoi man. daxaa jaaxal moom musul open press maa moom lay def open press. Ah, te man barke allah gi falu bis bii daa réussi moom. yee te man waaw man moom naa yees open press ma def ma dara. musul am adversaire xam nga lool. Ah, xoolal ñu bëre man de nga xool quoi da ngay xool di attel attel logique waa. nga ëpp combat dara. ay wàllum ëpp combat moom desul si làmb quoi ay ëpp combat deuxième la mais dangay xool am na ñoo xamante ne ni dañuy vidéo sax naan ba kii ni ñun ñoo ngi koy soogay gis comprendre nga. xam géwél bi mën a bëre mën mbokk géwél yëpp comprendre nga ñoom Aliou Mbaye ñoom Makumba waaw ñoom Baye di bëggee ñëpp. waaw di woo gaay yi na si gaay yi jàpp gaan waa diaspora bi ma fi yaa tàcc arab ñoom lino nañ si jàpp bu baax a baax yee ñoom non ñoom Ousmane ñoom Idi waaw ay Laye Suarez ñoom sëñ Diop mafia bi ay Lamine nañ si jàpp bu baax a baax. waaw ci allah gis nañ Laura géej sax la demoon ñu toog di ko xaar combat dafa dafa am lu la jaral. gis nañ macha allah corpulence bi yokku lépp yokku moom sax dégg nañ ko mu ne moom yow combat bi ci rek nga ko barke allah gi fàllu daf maa jaral de combat bi dama kaa bëgg de. waaw billaay yàlla na ma yàlla suturaal nag moo yor ndam may ma ndam bu gaaw bu yomb. yee mais bëgg naa ko de te bañu ma si dara waaw di bëggee Gora Saliou Gora Saliou maa ngi lay bu baax. waaw di bëggee Matar. Casamance. Matar. doo ngaaxa boo dafa bëri wax. mais gis nañ tamit macha allah nga yokk. non saa ñu dañuy entraînement ñun ay xale lañ waaw ñun luñ bëgg a toll mun nañ ko toll. Eh, entraîné ma pour combat bi kese. waaw daa am ñoo xam ne dama war a bëre ak ñoom. Eh, dama amoon benn faxasal boo xam ne moo xawoon sooxe sama yoon quoi mais làmb gi dañoo war a ñëw wane preuve. waaw bëre si jom si fula. yee waaw yàlla may ñu ndam quoi. mais a nañu adversaire bi mu ne soo taxee dëggal sa bopp dañ la for ci biir. waaw ah, loolu waxu mbër la rek waxu signature rek waxu làmb. Ah. waaw. yee bi matte gaj. ñun daal dañuy bëre yee luñ yàlla may ñu jël mais dañuy yóbbu lépp. waaw te yàlla na ma yàlla suturaal may ma ndam bu yomb bu gaaw combat bi ñëw na ba samedi biir ñëw bu topp la. instant maanaam man saay gars yi rek ñëw jàppale ñu quoi. yee fa tol toll moment bii nii. xeex na la dañoo bëgg gis benn xeex bu bëggee dañuy xeex man daal naa daan daan moom naa ko def. garaawul quoi dóorante beeg dóor saful ay dóorante yi saful méttiwul te man góor laa de waaw te jàmbaar laa góor bu dëgër laa yee musuma daanu ñu ne cim waaw te ba ànd na sosoo ba tey benn yoon laa daan sama ginnaaw laalu suuf yee ndogalu yàlla mooyoo ma def kat api kenn laalu ma comprend nga. man jàmbaar laa de comme yooyu noonu yëpp ay détails la ay dóoranteeg ay yooyu noonu. d'accord daan laa bëgg te yàlla naa ko daan. mais gis nañ combat bi nag wax dëgg yàlla dañ laa fekk samanin niin. sekk moom dara fekk sama niin. non non maanaam tey jii nii man lan laay wax buñ ma nee waxal ma si defet laa jógee lan laa war a wax moom na wax ba doyal. yee man tey jii lenn rek moo nekk sama kanam mais lan dama war a jëf yee teg lu leer. barki yàlla loolu kese kese mooy làmb yi mais lan laa war a wax fekk na wax mais bu arbitre sifflé wax jeex non no lu may man tey yi lu may bëre yow considéré wu sa yoon new si yow laa waxal ku la mooy dañuy làmb sa yoon new si lu may bëre man si digg géew bi yow sa yoon new si yee yow lu ngay reporté ba su làmb ji man sama yoon new si n'est-ce pas. waaw ah, man dama sama morom. waaye morom potu daal la jógeel fii waayaw. <laughs> Euh, ma jàngal. waaw daf maa xamal àdduna nag. waaw bu ma daanee si guddi gi di nga xam ne àdduna la ma xamal. waaw sëñ Fall. non non man gaw ma succès de lan mooy succès non non. waaye yow àdduna ayla la timis mu nax la nga naan ma coow lan mooy coow ak succès waaw ñun dañoo judd si nit ñi xam ñu yee ñun dañoo teel a xam billaay wallaay taalaay moo tax dara fëqul suñ bët waaw non non non non non ah daa doon mayut yàlla jox ko du ma sant yàlla man ñi ma daan daan gënuma leen waaw mais combat bii nii laa may bëre nii bëgg naa jaral nam te yàlla na ma yàlla may ma ndam ban style la. ñaata ñaata ñaata ba nga sangu nga. sangu nga ba nga jëlee ah, sangu njàmpeeg saabu la. waaw oh, fa dëgg yàlla géej naa sangoo njàmpeeg saabu. ah maa ngi yàlla jeexee <laughs> bu jeexee. ay kilo ah, naa sangu de saabu karoot bi laay jël rek doggali sama yaram nag. waaw ah, nga xamante ne day dindi benn teint teg beneen teint quoi waaw ah, mu doon malantin waaw. Ah. bi euh, king boxing bi fu mu toll wala da nga koo standard. waaw waroon bëre king boxing le 6 juillet quoi mais dama am lamb bi ma jaral ma ba ko fa ne ko fa ñuk non non même pas métti sama bésu lamb du ma si king boxing xanaa ah daa tombé quoi non non wax dëgg yàlla combat dama kaa bëgg dama kaa jox cër. waaw làmb ji am na fu ma mën a yóbbu quoi xam nga làmb ji tey jii ni mënul yóbbu sekk fenn. Ah, su la na ma yàlla musal sa gémmiñ. su daane laa wala soo ko daane ah, bu ma ko daanee waxut yàlla na ma yàlla musal sa gémmiñ su la daanee ah, loolu. man waaw dama ko war a daan si kàttanu yàlla ndax non non bul ma dugal. wax ma Yékini feeñ nag yooyu noonu de. di bëggee waa Joal di bëggee waa sëñ papa Yékini comprendre mais kii ut ku ne da waaw am ngay ñaan yàlla man am laa gëm quoi te yàlla na ma yàlla may li ma bëgg nii. bu la daa bu yow soo ko daanee yow yow boo daanee kii du la yóbbu fenn. nga lan mooy problème bi. yee man man la làmb gën a soxla. làmb laa lay wax waa ndax saay boo xoolee day daanu daan daan daan daa waaw. man ba at ma sasoo ba tey benn yoon kese la ma yàlla xañ waaw mbapat sax yàlla xañam comprendre te ngem bu ma bare woon laay bëre waate waaw ah, ndax laalul suuf quoi non non laalul suuf ban paa làmb di doole waaw yow doo ma bàyyi nga naan ma sa paa bi neew la nga sànni gi nga ti non saa làmb saa ñu ne liggéey di ah lamb dañuy liggéey da nga naa ma paa bi dañuy am doole. d'accord waaw ah, doole moo jiitu lépp. d'accord waaw léegi fi ñuy jeexalee ak yow mooy. Laurent dafa nekk ci contrat jàmbur. waaw démb ñu gis nga yóbbu sama gis. yow yaa ma gis. waaw man ngay waxal de. Ah. lan moo tax démb nga yóbbu gis. fan. démb face to face. signature ba non dew ma woon de. lan moo tax nga yóbbu ko. waaw yow dew ma signature ba nga ne dem nga signature ba rek maa gis. waay yaaw. mbokki internet yi garaaw waaw baax na léegi lërël mbokk léegi lërël mbokki yi mais Liss ak ki nga xam te ne moom mooy Zoss nee naa yéen ñaar seen làmb dafa tegloo macha allah mais combat boobu bari na coow mm. Liss Zoss ñooy bëre mais dafa mel ni yéen Ada Fass ngeen teg ba démb amoon na wax ji bari chaque jour Liss Ada Fass na daan Zoss saa damay waaj combat le 6 juillet Liss boo ko soxlee da nga koy woo mu génn ngeen def émission combat boobu nan nga ko liis da xëy yàlla na ko daan jël bu yom bu gaaw mais man laa la wax le 6 juillet damay bëre. léegi da nga léegi waaw léegi dañuy waxtaan. ah xoolal bàyyi sa yi def nag xoolal nga nii de laa waxee ak yow. boo soxlee liis da ngay génnee liis nga ne ko yaag zos. nga dugg si kulan nan ko gisee. liis da daan sax si kattanu yàlla yàlla na ko yàlla suturaal mu daan. waa incha allah si kattanu yàlla. no dégluwuma leen ñoom ñaar ñëpp man sama lam laa lii sax boo fi ñëwoon bu taxoon ngay naan Laurent lii sax da leen fixeel sa làmb nekkal sa làmb waaw waaw gis nga dañoo nekk sañ làmb comprendre nga boo jële Liss laaj ko si sos boo jëlee waaw boo ko si Seck ndaanaan waaye ke looy laajte waat sos ni mu toll. bul ma duwee sos gis nga sos sos ma ko am maîtrise xam billaay wallaay taalaay day naxe nii rek Zoss bokk nañ di tëdd waaw. xamante ngeen. waaw bokk nañ di tëdd kër sërif li sërif mun na seede ak ñeneen waaw Zoss bokk nañ di entraînement buñ duggee si salle bi moom yoonu boppam lay jël moom kese mooy tërëng ñu ñuy door ndax lu xale antenne mag antenne ko ko waa mais bu loolu weesoo maa waaj le 6 juillet sama làmb waaw le 6. le 30 mënuñoo xaar ngay indi. le 30 maa indi liste kay loolu sa question la waaw yow liste day bëri dimanche samedi ma bëri. sa gars ñëw ak coow li ni mu bii passé ak ñamoon nga te nga nar a ti yor contrat jàmbur Ibou Laye wax la kii. man góor bu dëgër laa de waaw te tapet du tekki waaw te dew ma nag ngir xeex man xeexuma di waaw mais tapet du tekki. waaw ban message ngay nag waane nga de maa ngi seetlu ngay naa ay d'accord saa yëg nga de ay d'accord yu garaw lay wax saa yi dérangé na la d'accord. bien sûr. ak yow léegi bari message gis nañ ne fan yi coow li dafa bari te lamb. c'est que nag man barki yàlla. bul ma da ngay séeréer da ngay dégg léegi da du ma sa morom Laurent yow internaute yi chaque jour lii lañ may Laurent jox ma cër waaye tamit. xam nga li nga gëj naa laa jël. Euh, ban message ngay joxe. Hmm. gis nañ ni làmb du violence. lamb dafa am fu mu toll. gis à chaque fois violence bi dafa commencé indiwaat. surtout ci face to face face yi ñu génn démb gis nañ euh, violence bi am ci entre jàmm gën ak waa Ndakaaru ak est-ce que tey nii ñu ñëwee buñ ko indee ci combat ba du am leen loo xam te lu mu yàqal ñaari camp yi waaw loolu moom du yoon waa yee ay coog ay yooyu noonu dundalul làmb yee ñun yi dañuy liggéey dëgg la dañuy liggéey pour booy tekki yee mais man moom gëw ma yooyu noonu ko ay coo yi nii waaw te man coo ma coo waaw digaluma kenn coow quoi comprendre nga. yee waaw ñëpp képp kii coow rek yàlla na la yàlla may sa bopp may la jàmm yee man sama kuddu jàmm la laaj comprendre nga man coow bu neexee rek maa ko te si digg géew bi la yee noonu la demee quoi waaw. tàggatoo. di tàggatoo di woo waaw Matar Matar maa ngi koy woo bu baax a baax borom Casamance non col bi nii la baaxee saa waay comprendre nga ah. kan la. ah. yow mii di njëroog kumba yàlla nag doo yem yàlla saa kumba yàlla lay njirool ko waa comprendre nga waa di bége Matar Matar borom Casamance di ko bége bu baax a baax waa di bége Gora Saliou Gora Saliou borom ñaari tali Gora Saliou Seck xam nga yow man sama xarit nga yow dama lay bëgg di xool comprendre nga di bége Gora Saliou bu baax waa di bége. Serif Aydara maa ngi lay béy di bëggee maam Seex Anta waaw maam Seex borom Daaru di bëggee Baay Sidi Mbàkke borom jaara bi maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee seex bi seex bi borom Dalifor taalibe Baay Ñas bi seex bi maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ne combat bi sa combat la waaw jàpp si bu baax a baax a baax.